Alhamdulillah, auzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala aşrafil enbiya vel murselin, seyyidina Mevlana Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdaril azim. يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد mbokk yi ñuy seetaan fii ci Equivox TV ñu ngi dellu siwaat euh, beneen yoon niki kii nuñ koy defee ci alxamis bu nekk di leen présenté waat seen émission ku di émission bi nga xamante ne yéen a ko taamul seen bopp ngir jiiti jot ay ngëneel yi nga xamante ne incha allahu comme ni leen koy waxee rek ay ngëneel yu sell la yu tukkee ci alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne képp koo xamante ne jëfandee na ko comme niñ ko waxee rek yàlla dina yéwénal sa dund ci mboole mi anam comme niñ leen ko fàttalee rek bële passé joxoon nañ leen ay mboot yu am solo ci ñi nga xamante ne bëgg nañ sëy waaye mu jafe donc ku ci bëgg am lu la leer rek da ngay dem nga seetaan euh, video bi incha allah lépp loo bëgg a lu rek incha allah da nga fekk di wax tamit ngeen gën a abonné ci chaîne bi ngir maanaam njëriñ bi di gën a yaatu incha allah tey nag dañoo ñëw présenté leen benn sirru bi nga xamante ne daanaka ñu ngi koy may suñu mbokk yi nga xamante ne ñu ngi nekk bitim réew nga xamante ne dañuy jànkonte ay coono yu méttee métti ngir tekki ngir yóbbul lu ñu munte am seen njaboot te yàlla dafay def lépp lu ñu am rek laatu ñu ko am coono bu méttee métti lañ ci la ñuy jànkonteel ndax tukki dafa métti nga tukki bàyyi sa njaboot yaa ngi dégg di sàkku loo xamante ne xamoo ndax danga ko am wala doo ko am loolu daanaka lu metti la boo ci tegee li nga xamante ne yenent bi wax na ko ne as safaru xitaatun min al azab tukki rek ci jëmmi boppam rek daanaka ndogit la ci mbugal nga nar cee teg nga dem fi ngay dem te amoo li nga doon yaakaar foofu xam nga ne loolu jafe la moo tax loolu moo ñu poussé tey ñu indil leen benn mboot bi nga xamante ne incha allah képp koo xamante ne yaa ngi bitim réew ak foo munti nekk moo xam Europe la Amérique yaa ngi dégg Asie même Afrique bi et cetera képp koo xamante ne daal dëkk ba nga cosaanoo danga fa jóge dem ci beneen dëkk ngir am wërsëg foofu mbóot bi nga xamante ñu ngi koy waaj a joxe képp ku ko def incha allahu dinga gis njëriñ bi donc sirru bi dafay jëm ci ñi nga xamante ne ñu ngi bitim réew comme ni ma ko waxee di sàkku wërsëg wala di sàkku kayit mu jafe wala nga bëgg yàlla tàggatal la maanaam réew bi nga nekk xolu mbindeef yi fa nekk waaye bi spécialement dañ ko jagleel ñi nga xamante ne dañoo nekk ci dëkk nit ñu weex ñi maanaam dëkk tubaab bi surtout bi ci loolu lay gën a dox donc képp koo xamante ne bëgg nga am ay kayit mu yomb la ba pare nga dajale ay millions ci réew ba nga nekk te réew boobu mu nekk dëkku ñi nga xamante ne ñu weex lañ na nga def mboot bi ñuy wax incha allah dina gis lu kawe sa njort ci wàllum wërsëg secret bi niñ koy defee mooy da ngay ut bindal aaya bii may bëgg a wax wa rafanaahu makaanan aliyan wa rafanaahu makaanan aliyan di nga ko fekk ci suratu mariama foofu la nekk waaye aaya boobu ñaata nga koy bind da nga koy bind mille cent onze fois boo paree nga teg ci tur bi ñuy wax yaa hayaanu yaa hayaanu di ngeen ko gis maanaam ci illustration vidéo bi ya hayaanu ñaata nga koy bind six mille six cent soixante six fois nga koy bind boo paree nga teg ci fa buhita alladi kafara fa buhita alladi kafara aaya boobu di nga ko fekke ci suratul baqara ñaata yoon nga koy bind da nga koy bind mille cinq cent vingt huit fois li ñuy wax boo ko bindee ba noppi dangay ut sunguf bu ñuy woowee sungufu fuuf sunguf su xonk la bi nga xamante ne ñëpp xam nañ ne sunguf bu yéeme la ci wàllum bayre tubaab sungufu fuuf boo paree nga ut karawu tubaab karawu nasaraan moo xam ku góor moo xam ku jigéen moo xam xale moo xam mag waaye na doon karaw tubaab daal wala karaw ñut ku weex boo utee loolu ba pare nga ut parfum bu ñuy wooyee parfum misk nga boole kook saafara si nga xooj ko nga sangoo ko lu mu bon bon pendant ñeen fukki fan ak benn mooy quarante et jours boo koy sangoo suba ngoon lii boo ko defee premier jour yi rek di nga gis ni tubaab yi di ñëwee ci yow dafay mel ni dañ laa bëgg a lekk surlu bu yéeme la incha allahu képp ku ko def daal lépp luñ ci wax dinga gis maanaam lu kawe sax sa njort incha allah donc loolu lañ leen indiloon tey di leen jox dig daje incha allah ci beneen alxamis ci seen beneen émission wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf